gan gi ñoo am mbégte ànd ak yow tey Babacar mbay ngaraaf di la nuyu. maa gërëm la itam ci teel a yeew bi ngir waxtaan ak ñun alors euh, yaa jiite Alliance Sauver le Sénégal Sénégal fi mu toll lan ngeen yaakaar a def ngir sauver ko gannaaw coowal Sonko lii jóg euh, tàmbale itam euh, yegg ci yenn dayo yi ñuy teg loxo nit ñu bari waaye itam ñu bari di seenu fitna goo xam ne xëy na mënees na koo gàttandu balaa béyewee mbuus. en fait d' abord xam nga ginnaaw bu ñu nuyoo mbokku auditeurs yi ba pare nuyu leen gërëm leen sant leen. Mm. ñu ngi sukkandiku sunu kàddu ci li olof jàngal tubaab jàngal ñu ko. olof dafa ne ñëw waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko. tubaab wax ci nu prévenir vaut mieux que guérir. tey tey coowal Adji Sarr Ousmane Sonko bii ca njëlbeen nga mbiru ñaari citoyen sénégalais la woon. donte it sax am nañu jàpp ne am na mbiru politique ci suuf mu ñu ko dàq. Eh, mais tey ku waxal yàlla rek gis ni dafa commencé quitter boobu terrain dem ci benn terrain glissant un terrain incertain boo xam ne ñu ngi wax ce qu'on appelle un repli identitaire te foofu suñu fa eggee nag dafa mën a jur ay jaamarloo ci waaso wala loo diggante ay dëkk jàpp dëkk am na yoo xam ne xew na ci réew yi jóge suñu bos yi te ñaanu yàlla muy am Sénégal gii nga xam ni bërki démboo njaay la perte ay téeméeri téeméeri ndawam ci géej gi ñu ndax lu ñuy wax te barsa wala barsaax corona bi noppee gul rey doo toog bisu lëmm boo déggul corona bi rey na fukk jëm kaw kon jàpp nañu ci boppu contexte am na leneen lu ci war a gën a tal lu dul coow biccoo ak mbaaloo rawatina nag mbir yi tournure bi mu commencé jël dañuy ragal mu jëm ba nekk ci mbiru jàmmarloo yàlla nañ ci yàlla muccal ci wàllu waaso hmm. ñu bari na xam nañ ko waaye dañ koy noppiwaale dañoo jàpp ni encore une fois xamoon naa ko wax ko moo ñu jëm ci saafara moo gën fuuf ñu nekk par ko bu ëllëg mu jur musiba. loolu moo tax yéen sauver le lu ngeen nar. taxawaay yi ñu ci am. Mm-hmm. mooy jàpp ni ginaaw mbir mi ginnaaw yàlla ci loxo Adji Sarr ak procureur de la République. Mm-hmm. li ñu mën rek mooy ñaan aji saar mu retiré plainte am duñ ca yem ñu ñaan aussi procureur de la mu dakkal toppaate gi ndax lu ci mënti xew yàlla sunu borom Adji Sarr Ousmane Sonko ñoom rek ñoo xam ne xew. Mm-hmm. te jàpp nañ ni ñoom ay jullit lañu war nañoo gëm ne àdduna bi luy jeex la waaye am na fu ñu jëm fa xam du jeex te foofee dañ ate muy alaxira waa Adji Sarr ñi ngi wax ni li ñuy wax dëgg la Sonko ak ñi mu àndal dañuy manipuler opinion bi waaw Sonko ñi ngi wax ni complot la boo xam ni Macky Sall ak nguuram ñoo ko lal waaye lu ci mënti xew am na ko xam ne moo xam lépp muy allahu te jàpp nañ encore fa ay jullit lañu te dañ jëm bis ca moom. foofee nag kenn mënu faa manipulé kenn kenn mënu faa complété ci kanamam moo tax ñu ñaar Adji Sarr rek mu retiré plainte bi peut être dañ ko tooñ mu jéggal te yàlla tax ndax kat diine nangu na ñu tooñ la ba mu wir tooñ nañ la nga fay diine nangul la ko. Mm. nangu na aussi ñu tooñ la ba mu wir tooñ nañ la mënoo fayu waaye nga bàyyi suñu borom mu fayul la waaye aussi la mu gën santaane mooy nga bàyyi ñaar yooyu yëpp nga jéggal te yàlla tax yàlla soppil ko aw yiw mm-hmm. te foog naa ne âge bi mu toll ak condition de vie am la mu a soxla tey a ëllëg mooy yiwu yàlla. walaata mm-hmm. wuñ nag de. Mm-hmm. waaye il faut ñu xam ni il faut que suñu doxalee ñu xam ne yàlla de cee bokk ñu koy bàyyi xel. di jàpp ne sa mujj ëpp solo. kon encore une fois dañuy ñaan ma madame Adji Sarr ngir jàmmi réew mi ngir dalu réew mi ngir boolu réew mi nga xam tey Sénégal dafa soxla un consensus fort pour ñu mën a réaliser ce qu'on appelle le Sénégal de tous le Sénégal pour tous et le par tous. Mm-hmm. am réew bu choisir dund ci démocratie dafa am ñaar yu koy firndeel benn bi mooy ab majorité bi gouverner ak benn minorité buy opposé soxal nañ Ousmane Sonko en tant que chef de l'opposition soxal nañ également jaami réew bi encore une fois nag li am sunu borom moo ko xam ak ñoom ñaar waaye ala kulli àll jaami réew mi dara fay ko. ndax da ngaa gëm ni complot politique da ca am. non du ko may la xam nga am ñaari tuuma. dafa am waa Ousmane Sonko dañuy wax ni complot politique mhm. ñi nga xam ñi ngi jàppale ay saar wax ni affaire bi kat dëgg la waaye waa Sonko yi dañuy jëm a bi. Mhm. man ne ak lu mënti xew ku jox la da ngaa dëgër borom bi dara tawul bi dara umpul. Mhm. nekk fépp. aji saar mi tuumaalaate Ousmane ñoom njeeg ñoo xam waaye lu ci mënti am tamit jàmmi réew mi war naa mën a tax ba ci nekk fàtte sa bopp. bu dee Ousmane dañ ko tuumaal loo xam du dëgg complot la. moom sax nee na jéggal na Adji Sarr bu dee Adji Sarr tamit dañ ko tooñ ba pare bëgg a manipuler nit ñi moom moo xam kon moom la ñu mën a yàlla moo xam ak moom kon moom la ñu mën a ñaan bu retiré plainte am te jàpp nañ bu retiré plainte am aussi pour que la république dana arrêté toppaate yi ndax réew mi ku tiit jar naa tiit ku tiit tamit jar hmm. maa ngi dégg sànq seen xibaar yi wala xibaar seen i confrères kër député bu ñu taal ci Tëngéej kenn xamul fan lay jëm. te encore une fois contexte bi ñu nekk mayewul jàmbaar la suñu biir au contraire nañ boole suñu doole yi xeex nañ leen xeexee corona ginnaaw bi mu duggee suñu réew te njiitu réew mi woote woon pour ñëpp ànd te loxo ñëpp fekk si ko aussi opposant yi sa nga xam da leen toñoon toñ bu mettee métti ku ne faa ngi saat la ko diggante Abdoulaye Wade waa PDS ak Macky Sall mm-hmm. waaye bi mbas mi teewee Macky Sall woote dañoo fàtte seen bopp te wuy ji ko Ousmane Sonko Macky Sall ko dàqul liggéeyam ak nguuram liggéey am na solo goo xam ne ku la ko xañ ku ne da daanaka soo amuñ ngëm rek da koy jàppee noonu waaye bañ ko woowee ci wàllu corona bi dafa dem wuy ji Khalifa Sall malgré lañ ko jàpp tëj kaso xañ ko meereem xañ ko ay droits bañ ko woowee dafa dem wuy ngir lan réew mi ma foog ne boobu jamono la ñu war rek mooy continuer waaye waruñoo teg benn jéego ba xam ne dafay créer ce qu'on appelle une déchirure nationale. d'accord alors mbir mi itam am na ñu jàpp ne ñu ngi ciy manipuler justice bu baax justice booba ñu far sax euh, gëm ni moom moomut boppam yow itam daan dégg nga di ko wax euh, ci mbiru pétrole ndax tey yaakaar nga ne sénégalais yi ak lu mën a xew war na noo nangu justice bi daal di dogal ci lépp maanaam ñu bàyyee ko lépp te dem toog. xam nga coow yu mel nii am na ci yeneen réew maa ngi fàttaliku ni am na ku ñuy wax Dominique strauss amoon na fi coow li mel ne Aminata Diallo bi ñuy wax benn euh, Guinéen boo xam ne daal cosaanam Guinéen la. Mhm. amoon na coow seen dëkk ya. Mhm. mais dañoo dem ci yoon yoon àtte ko mais problème Sénégal boo seetloo ci Ousmane Sonko sax pourquoi dafay wax ni du dem di wujj parce que dafa wóoruwul justice bi. Mhm. te it nag tooñul de boo fàttali ko li fi xew ci mbiru Karim Wade. xew ci mbiru Khalifa Sall. xel dina tee ci nga ni kat dañ may jaarale fañ jaarale ñooñooy. d'autant plus que ki nga xam tey mooy njiitu réew mi nekk bàyyu ñëpp. bàyyi nation bi yëpp yilif ñëpp war a aar ñëpp dafa taxaw temb te nëbbu ko sax ni dinaa réduire l'opposition à sa plus simple expression soxna si fàttalikul bi ñuy jàpp xalif kari ñoo kari baat dañuy waxoon réduction des comptes la ñu ne demande sociale la génne liste ñaar fukki nit ak juróom kenn lañ ci topp kenn lañ ci ërtal kenn lañ ci daan tëj ko ba mu neex la ñu jël ko génne ki mi te ba tey néewuñu sax sénégalais yi xaalis ba tax ñu koy topp bu seen xaalis indi nañ ko temps la léegi sax boo dégg ñox lu ñu wax en tout cas bu ñëwee dinañ fay saa yu kon nit ñi ñoom nguur gi du xaaj ba leen intéressé bu dee am na leen intéressé bañ fee nekk gi nga xool Khalifa Sall kenn mënu maa gëmloo ni hmm. ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari maire yi am ci àdduna Sénégal gi moom kese moo ci def ak moo ci def moo ci moo jëfandikoo li ñuy wax es d'avant nga xool li fi xewoon ci yenn jamono yi Barthélémy Dias dafay nekk ànd ak nguur gi am lu ko opposé woon ak ku ñuy wax Ndiaga Diouf nguur gi ñoo ko jël parti bi nekk pouvoir ñoo seen coalition ñoo ko jël def ko député mu commencé am lu muy ñax di xeex di am lu muy kaas ñu sonk ko yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ci yoon tey ba xam ne sénégalais yi ñu wax ak ñu ñoo ko wax lañ doon wax j'ai confiance à ma justice dafa commencé den ci ñoom léegi kañ xaalis def mooy leen hmm. dama am tiitaange ak système justice ñu jàpp ni également indépendance de la justice ñi jàpp ni dafa war a am du ñun kese hmm. ba ci magistrat sax ñu ngi xeex pour ñu yokk pour ñu am indépendance de la justice. Mm-hmm. xoolal li fi xew jamono yi day waase diggante président IMS Souleymane Téliko ak ak ak ak ak ak nguur gi jaarale ko ci euh, euh, maître Malick Sall. kon même magistrats yi war nañ xam ne ñoom ils ne sont pas épargnés ils ne sont pas à l'abri des persécutions bu fekkee Sénégal yi ànd ñoog ñoom xeex ba indépendance de la justice am. yéen a ngi doon xeex ci mbirum pétrole bi ak Aliou Sall. may ma ma ma lu ma fàttali. waaw wax ni. bu ñu gisee ni à chaque fois ci réew mi ñu jàpp benn kilifa politique. ñoñam mhm. taxaw di wax créer benn mouvement. Mhm. bu ñu jàppee Karim ñu ne mouvement libéré Karim bu ñu jàppee Khalifa Sall ñu ne mouvement libéré Khalifa Sall. Mhm. daanañ wax ne benn mouvement rek lañ war a taxawal te ji mooy mouvement libéré la justice. parce que lii yëpp su mënee am. c'est parce que dañu am justice boo xam ni nguur da koy jëfandikoo di ko dóore ay adversaire politique am waaye bis bu ñu amee ci réew mi justice boo xam ne la ko tax a jóg te mu nekk ca mooy lenn kese mm-hmm. mooy àtte yoon ñëpp dinañ am dal xel parce que ñëpp dinañ jéem a tegu ci yoon xam nga yaa ngi dégg Ousmane Sonko ak ñooñam mm-hmm. di évoquer affaire ay violation de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire mm-hmm. waaye ragal naa ni njort naa ni loolu waxin la rek waaye seen tiitaange dëgg mooy dañoo amul assurance ni am nañ justice bu indépendante boo xam ne mën a aate Sénégal yëpp nag bëgg nañoo xam dëgg-dëgg li xew dama jàpp ne jàmm réew mi ko ëpp njëriñ te bu ñu réer tey ci aussi ci kaw suuf danañ ci am lu leer bu ñu yeggee àllaaxira incha allah rabi. leer na alors yéen a ngi doon xeex ci mbirum Petro-Tim ak euh, Aliou euh, Sall euh, yoon bi ngay wax nii moom moo ko daal di jox non-lieu maanaam ragg ko ba mu set boobale xeex ngeen fësoon ci lool ndax fi mu nii da ngeen kaa teg ci suuf wala yéen a ngi koy wéyal ba tey. waaw pexe amul xam nga àdduna dafa organisé wu. Mm. ku nekk dafa am looy def après am fooy yam ñeneen eggale ko. Mm-hmm. xeex bi dañ koo sumboon fii ci biir réew mi ñu jàpp ni kat li ñu war parce que bu ñu fàttali coono Petro-Tim Abdoulaye Wade président bi fi jóge moo ko njëkk wax ci mbedd mi. Hmm. ñu jàpp ne scandale bu rëyee na Aliou Sall ak ñoñam indi ay tontu waaye seen tontu ya dafa gënoon lëndëmal sama xel yi suñu xel yi ka lañ doon xaar ci ñoom ci ak leeraange yi mu mel ni mbir mbir bi di ko bëggoon def affaire de benn jeu de ping pong entre deux partis politiques alors que lañ doon wax mbir la boo xam ne Sénégal yëpp ñoo ko bokk te jàpp nañ ne suñ ko liggéeyee nañ ko war a liggéeyee suñu réew mi dana am naataange goo xam ne suñu ndaw yi dootu ñu nekk ci soxlaay sangu géej gi di wuti teraanga ndax réew mi dana am ci koom-koom ak teraanga loo xam ne ñun kañ sax ñooy xëcc ñeneen ñu fi ñëw waaye ñu dootu ñu dem feneen ndaxte neex bi réew mi di neex. Mm. kon su ko ay nit bëggee salfaañi bu ko aakimoo ah day jaaru kat ñu leeral ko naññ ba Sénégalais yépp xam la moo ci xew. Mm. justice dugg ci une boo xaale wuñu ba ci yàgg affaire Mayeni Jones bi am reportage BBC bi am. mbir mi daal di ñëwaat ci mbedd mi. Hmm. suuf dugg ci déglu nañ ñu ñoom jàpp nañ ca la ñu wax ni fii daal dara amu fi kon ñun suñu jaan wàcc na la ca des nag ma yeneen patriote di ay compatriote ca bitim réew. Hmm. wax nañu ni ñoom danañ eggale xel bi ca bitim réew ndax adduna bi te c'est un village planétaire. Hmm. lii xew Sénégal ñëpp la intéressé adduna bi yëpp. comme lii xew Mali ni mu intéressé adduna bi yëpp. ñun nag fii Sénégal dañoo dugal beneen façon xeex muy daan constitution bi dafa wax ni. ressources naturelles yi maanaam askan wee ko moom askan bi ki ko fi nekkal xam nga mooy ñan. Hmm. mooy assemblée nationale la ñuy wax représentant du peuple. Hmm. waaw kon yow koy soo amee sa alal kañ yaa am sañ-sañ joxe ko wala nga maye ko mbaa nga dénkaane ko comme nag kon ñi ñu fi nekkal mooy assemblée nationale dañoo jàpp tey ñi nga xam ñoo war a contrat yi war di signer licence yi waratu nekk président appli waaye dafa war a nekk assemblée nationale naam sax dinañ ñi ah assemblée nationale kat ña fa nekk ña fa ëpp mooy parti au pouvoir waaye quel que soit alpha mm. buñ fa ëppee tamit am na ñeneen ñu fa nekk ñoo xam ni luñ fa dugal dootale kumba ci réew mi ndax réew mi dinañ ko xam ndax député dinañ leen ko wax ñu seen teel a jóg seen ay matuwaay. Mm. en résumé tey xeex mi ngi nekk surtout à ce que léegi pouvoir signer ay licence ak ay contrat ñu dind ci wàllu ressource naturelle jëlee ko ci président public jox ko assemblée nationale. tàmbali ngeen ci dafi jéego. waa ñu ngi ciy waxtaan ak ay député yoo xam ne nag. ñii nekk nañ opposition ñii nekk nañ pouvoir parce que li am solo li ñëpp war cee bàyyi xel mooy député dëgg la sax ab parti wala coalition de parti ñoo ko dugal ci ay list ba ak faloo mën a nekk waaye une fois mu falu nekkatul euh, député parti député peuple la mi ngi mel ni comme tey docteur bi nga xam ne kat ay waajuram ñoo ko fayal mu jàng école ba tax mu génn nekk docteur su xasee bu génn docteur réew mi yëpp la hmm. waaye nekkatul docteur waajuram kese mu lool ni sama waa kër rek lay faj sama papa sama yaay sama yaay samay rak ndax ñoo doon fayal. te mm-hmm. ñoo ko fayal de. Mm-hmm. waaye daal ba su nekkati docteur dafay liggéey réew mi yëpp parce que docteur réew mi la moo nekk ci enseignant bi moo nekk ci docteur bi moo nekk ci keneen mécanicien moo nekk sama papa moo may jàngi métier am atelier bi lay réparé sa oto. bu mm-hmm. indi mu réparé la. kon député une fois élu rek nekkatul député parti waaye député. réew mi yëpp la. Mhm. fi ñuy jeexalee moo tax ñu ni seeti. d'accord fi ñuy jeexalee mooy Sénégal gi ñu bari itam ñu ngi wax ne euh, crise de euh, l'état de droit moo fi am yow ndax euh, boo seetloo fi réew mi toll loola ngay gis. waaw xam état de droit mooy état boo xam ñëpp dañoo tënk ci droit maanaam yoon ñëpp la fi nekkal waaye am na fi ay xew-xew yoo xam dafa mel ni état bi de Sénégal dañ ko xaaj ñaar hmm. ñi nga xam daal ñooy tàccu nguur gi lépp lu ñu def dagan na. waaye ñi nga xam ne kat dañoo contre nguur gi lépp lu ñu def rek coono fekk leen ci te Sénégal nag ñoom ñoo choisir nekk une république nekk une démocratie démocratie mooy ab majorité buy gouverner ak minorité buy opposé wu te jàpp naan tey sax lay rafetal taarixu Sénégal te waru réer ci Macky Sall ci loxoy Macky Sall mooy lan démocratie bi am jëmm yow ni nga nekk président nga d'accord ne ma am opposition waaye bu dee mbir mu nekk opposition nga ko mais day daal di bokk na ci liy firndeel suñu tiitaanga ci état de droit mooy xool li fi xewoon bi nga xam ne yoon dafa àtte diggante ay élèves maîtres yi ak euh, le ministre Serigne Mbaye Thiam la moo ci am Serigne Mbaye Thiam bañ koo jëfee défier même laa cour suprême arrêt bi mu génne woon mujjul fenn élèves tey ba léegi liggéeyaguñu xoolal le ministre Moussa Diop nga xam ne cour de comptes ñoo fi dema ji liggéey seen liggéey da leen toxal bañ ñu tontu xasan bañ ñu ràpp mujjul xoole coow yi xam ne am na fa ci affaire ay mbirum Cheikh Omar Anne ay mbirum Prodac ay mbirum lenn fekk na ci boo amee jamono. Mm. lañ jël Khalifa Sall tumal ko 2000 ak ko ràpp ci kaso bi. ñuy tudd ñoom Mame Mbaye Niang mm. ay milliards ñu tudd Cheikh Omar Anne ay milliards di tudd ñeneen ak ay milliards dara ba dara booloo jël fekk leen ci loolu nag mun ñoo jàpp ni réew mi yoon mi ngi yemale ñëpp. jërëjëf état mm. mooy yoon boo xam ne réew moo xam ne ñëpp ay yem ci wàllu kan ci kanamu yoon. réew mi daal ci tënk rek. dafa mel ni tey dafa taba ci guddo xam ne xam lañ daa wax naan force reste à la loi. Mhm. waaye léegi dafa mel ni loi reste à force maanaam ñu am doole daal ñu am seen loi te lépp lu ñu rek mooy jàll. mooy jàll jërëjëf Babacar Mbaye ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi FM tey. merci jërëjëf